alors Samir tey ñu ñëw euh, seetaan si dernier épisode Karma lancement tamit en prise euh, sa teewaay ci ñaari série ah ok bon heureusement mënu ma nekk asamaan nag di taw fépp mais bëggoon naa ko quand même su ma waaw su ma mënoon multiplier wu di nekk ci série yëpp nag am am foo xam ne fu ne dinaa fa def euh, ne serait-ce qu'une apparition bon di nekk di gërëm rek liggéeyu Marodi bi vraiment di di gërëm di di leen sant pour le travail qu'ils sont en train de faire au niveau du cinéma aujourd'hui nous voyons tous les jeunes qui arrivent à trouver du travail qui sortent de, fraîchement des écoles qui arrivent à trouver du travail à se performer surtout euh, dans la pratique et ça c'est quelque chose qu'on salue Et en même temps, du côté technique aussi, là, le cinéma africain a beaucoup avancé grâce à Marodi aussi. Aujourd'hui, on nous regarde au-delà des frontières. Donc, euh, c'est un travail que l'on salue. On parle aussi bien sûr d'autres productions, mais aujourd'hui, il s'agit spécifiquement de Marodi. Voilà pourquoi je parle spécifiquement aussi de Marodi. Alors, euh, une une femme un mari dañ gis gis nañ la tamit euh, ci yeneen série yoo xam ne mbaroo di nga ko defal mais boobu ci série boobu noonu rôle bi ngeen ci joué sa complicité ak ñoom Doudou ñoom euh, ñeneen ñeeg ñooñu ñoom Fred ak yooyu noonu nan ngeen réussir noonu complicité boobu noonu ba tey sénégalais yëpp. mais en toute simplicité ah écoutez c'est comme à l'école yow ni nga xam ne ñoom ngay gën a àndal ñoom ngay gën a déggool après vous avez une complicité que vous tissez entre vous il y donc plus on joue ensemble on se fréquente on passe deux journées ensemble donc loolu moo dem ba indi complicité bi on se comprend il nous arrive aussi de sortir au-delà du travail de se fréquenter de connaître nos familles euh, de, connaître les endroits où on vit de connaître nos parents donc loolu tamit moo créé complicité boobu yëpp et puis bon ça voilà c'est c'est on, on voit les résultats aujourd'hui derrière les écrans mais na la alors très très agréable ah gars yi on est très très fun on leur fait énormément rire am na ñoo xam ne dañuy woo ay extérieur États-Unis di wax ne aujourd'hui vraiment ñu leen di déstresser quoi et puis dañuy namb ñëwaat Sénégal parce que am na lu bëri loo xam ne doo ko dund boo nekkee extérieur donc yenn yenn termes yi doo ko utiliser parce que tu ne trouves personne avec qui parler wolof donc gars yi suñu seetaan suñu série vraiment que du bonheur que du bonheur. <laughs> da ngaa ragal sa jawaar yow rôle que est-ce bon parce que man réellement noonu laa mel man sama jabar dama ko respecté moom lépp lu mu bëgg rek man topp naa ci ginnaawam et je vois que sa réussit à notre couple et à notre union donc euh, que du bonheur. <laughs> mais rôle bi nag am bés nga si retour yoo xam ne tamit neexul ay critiques yoo xam ne ñu naan du ragal jabaram wala woo def ñu war a def. bon il est tout à fait vrai qu'aujourd'hui donc euh, quand on regarde le caractère d'un homme dañuy wax ne moom mooy homme de foyer moom mooy yore moom mooy sol pantalon bi moom mooy téye kër gi c'est l'homme c'est lui la moom mooy poigne bi quoi alors qu'on sait aujourd'hui que c'est pas parce que dans plusieurs couples aujourd'hui on se rend compte que ce sont les femmes ñoom ñoo yore gestion wu kër bi ñoom ngay jox xaalis bi pour ñu jënd ration ñoom ñooy éduquer say doom ñoom ñoo lay wax lépp lu manque ci kër bi ñun góor yi bu ñu wàccee ñu ngi zappé télé bi di seetaan match wala ñu yëkkati xaalis que couple yi nga xam ne ñoom respecté nañu seen jabar wala ragal nañu seen jabar si on a envie d'utiliser ce terme là j'ai remarqué que ce sont les couples qui durent le plus dinañ def ay plus de cinquante ans de mariage donc le conseil que je dois donner aux autres c'est suivez vos femmes parce qu'elles ont une bonne gestion